asalaamaaleykum euh, mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission demb seen émission demb nag tey dafa dem ci dëkk bu mag suuf su yàgg mu di Ndar Géej koy wax Saint-Louis foofu nga xam ne mu ngi bokk ci royaume di Waalo wax demee Ndar sax ña fa ëpp Waalo la ñu jógee wala ñu jógee Gànjool te benn population la Ndar nag xam ngeen ni day dëkk bu yàgg ndax. Euh, tubaab yi ñu ngi fa dugg si 1659 ay marins yoo xam ne Normandie la ñu dëkk ñoo fa ñëwoon bam yàgg ñu defar fa ay comptoir eh, gis ngeen dëkk bi niñ ko liggéeyee mook eh, ni tubaab yi tabaxe benn la muy dëkk bu yàgg boo xamante ni eh, histoire yàgg na fa ndax Ndar moo nekkoon première capital AOF nekk aussi première capitale bu Sénégal ak Mauritanie nekk dëkk bu rëy dëkk boobu nag tey ci lañ dem pour xamale leen ak Saint-Louis du Sénégal place bu nu mën tuddee place de Lille xam nga Lille bu nekk ci France ak Saint-Louis ñooy jëkk jumelé seen bopp pour wane ni ñoom lëkkaloo nu ci pour taxawal patrimoine bi pour xeex patrimoine bi nekk lu am solo euh, lu lay wan ni euh, rue bi boo ko xoolee alors euh, ba fee tuddee woon nañ ko rue Miliès-la-Croix tey ñoo ngi ko tuddee Émile Colich nga xam ne aussi notable la bu bokkoon ci Lille Euh, jëmm yu fi nekk yi na nga gis nii mën nañu wax ne tabax bu fi njëkk mooy li ñuy tuddee gouvernance mooy immeuble bi nga gis mhm. boo xoolee ba fële ci partie bi nga xamee ni fële oto yi di génnee mhm. da nga gis ni am na ay maanaam canon yu jëmmal foofu moo doon la fort mhm. foor boobu mu ngi daté 1659 1659 mën nañu wax ne mooy premier construction bu am ci ville bi ci ville bi ci Saint-Louis donc euh, ñu koy tuddee l'île de nga xam ne même su fekkee euh, kenn dëkku fi woon Euh, maanaam euh, suuf si la Baraag moo ko moomoon la Baraag di Waalo. Baraag di Waalo Baraag di Waalo moom moomoon suuf si. Mm-hmm. léegi Baraag amoon na benn représentant bu ñuy tuddee euh, Jàmbaar Diop. Mm-hmm. France di ko bindee Jean Bar. Mm-hmm. bu mu ñëwee nag moo leen permettre ñoom ñu nekk fii occuper ville bi bun ko occupé nag lii luñ fi jëkk tabax. buñ ko tabaxee itamit duñ ko tabax parce que dëkkoon nañ fi ñëw ci booru Gandiol mais tabax boobu baaxul woon. waa boobu yàqu na hmm. ñoom xamatuñ ko woon sax hmm. moo tax bu ñu dellusee see nunu nunu tabax tabax bu gën dëgër bu wër moo tax foor bi nekk fii maanaam bëtu yi nag di jaar nii dem ci biir dëkk bi hmm. dem ay Podor Matam ba Mali di wuti ay lu ñuy tuddee loolu gomme arabique te mooy dakande bi dakande amoon solo lool naari yore woon ko fii waalo waalo yore woon ko fii soninki yi yore woon ko fee alors ci biir lool la gars yi ñëw nag di jël dakande boobu pour di ko mën yóbbu France muy produits yi nga xam ni mooy permettre industrie yi nekkoon foofu yëpp di ko utiliser comme matière première pour fabriquer yu bare xam nga ci chimie daa si gis ay colle adhésif boo demee ci wàllu euh, alimentation daa si gis ay bon confiserie pâtisserie boo demee ci wàllu papier boo demee ci wàllu yu bare bare donc application bu amoon importance la moo taxoon for bi. ñun ñu ko defar mu solide. xam nga mais sànq yaa ngi may wax euh, Razak ci tableau bi. waaw euh, yor euh, mandargaw UNESCO. waaw mandarga bi gis nga dafay wane foo man dem gis mandarga mel nii rek mooy symbole UNESCO. Hmm. day wane ni ndar dëkk bu am solo ci adduna bi yëpp ndax UNESCO daf ko classé patrimoine patrimoine universel bi nga xam ni maanaam ku fi ñëw lu fi bâtiment yu fi nekk yi. moom ngay gisaat ci boo demee ci yeneen dëkk yi nga xam ne ni moom ñoo ndar ñoo dudd woon boo demee États-Unis fekk fa boo demee Amérique du Sud fekk fa boo demee France fekk fa mooy patrimoine classé donc mën nañu wax ni ville aujourd'hui patrimoine classé la de l'UNESCO e que ci loolu nu mën démarrer pour mën a vraiment sensibiliser population yi élèves yi euh, ñëpp daal association de quartier yi OCB yi dem ñu jàkkaar lool dama day ma laaj sànq ñu ni ma mm. euh, hôtel bi di hôtel de la Poste avion yi fii lañ njëkk di wàcc. yooyu ba yan at la woon. waaw xam nga hôtel bi mën nu wax ni moom presque ci seconde moitié dix-neuvième siècle mën nañu wax ci hôtel yu gën ancien mën nañu wax ni à part hôtel du palais. Hmm. moom moo fi presque deuxième hôtel bi fu gën yàgg. Hmm. waaw lu waral nag hôtel de la poste siiw ci àdduna bi mooy vraiment hôtel la bi nga xamee ni. Hmm. alors comme ni nga ko waxee léegi après ba première guerre mondiale jeexee. amoon na ay armes yeeg yëpp dafa am euh, ci France benn industriel bu ñuy waxee Pierre Georges Latécoère bi nga xam ne dajale woon na yooyu yëpp pour jéem ko defar ay avion yu ndaw pour di yóbbu ay courrier diggante Toulouse dem Espagne Alicante Malaga plus tard ñu defaat yeneen avion ñu jóge foofu dem ba Maghreb maanaam ay euh, Algérie Tunisie Maroc nu fa jógee nu traversé ñëw ci ay port Étienne mooy Nouadhibou à Mauritanie ñëw ba Nouakchott mais également traversé ñëw seen louis lu waral nag seen louis gën siiw ci yooyu yëpp mooy fii xam nga ci le 12 mai 1930 ci la Mermoz vraiment traversé Atlantique Sud pour dem ne maintenant ba àgg au Brésil montrer que ni on est plus proche du Brésil que de la France boo nekkee à Saint-Louis ce qui fait un emplacement extrêmement stratégique ah, donc waaw Brésil waaw Brésil Brésil mi ngi nii sorewul boo ah. traversé rek àgg mhm. alors que France daa def ay 5 heures 6 heures de temps ah. fii mën nga def ay 3 heures de temps yooyu pour àgg waaw donc loolu mooy moo waral nag hôtel bi nekk hôtel bi nga xam ni fa la équipage bi yëpp doon ñëw mm-hmm. et ku si mel na Mermoz aussi mm-hmm. nekkoon ci bokk si ñu gën siiw mm-hmm. fii ci Ndar amoon fi chambre Jean Mermoz xam nga après am na fi sax benn nga ni avenue bu ñu tuddee avenue Jean Mermoz daan ci agsi ngeen ngeen xam amoon nañ nag chambre 219 xam naa su ngeen paree avec le propriétaire de l'hôtel daa ngeen mën def ay reportage chambre boobu waaw waaw dem ci ban site lañ jëm nii léegi ñoo ngi jëm ci ay Morel et bu ñu fa jógee dem ci ay devers et chemins. Mhm. continuer jëm ci grande mosquée Loora boobu. Mhm. ak euh, dellu si waat nag maintenant xool yeneen ay sites yu mel nekk ci dëkk bi. par benn benn. quai nu jëm. quai du Roum la tudd. Roum Roum lu ñu ko tuddee woon bu yàgg. waa mais moom yàgg na fi de. yàgg na xam nga quai bi mu ngi dikkoon sax tuddee quai Malavoie. Mhm. mais bu fa fi jógee ñu tuddee ko Ernest Roum. mais xam nga Roum nu mu presque déplacé capitalu AOF yóbbu ko Dakar. Euh, moo tax pratiquement xëy na peut-être notable yi fi nekkoon yu bare. amoon ci moom ay maanaam mereeg yu mel noonu. ah moom ci ñu yóbbu capital bi. waaw capital AOF. Ah, parce que xam nga xam nga AOF ah, waaw moo ko jëlee ndar. xam nga ndar dafa nekkoon capital à partir de 1895 bu ñu créé AOF. 7 ans mu nekk capital. léegi bu mu jógee ci 1902 euh, maanaam 7 ans. ñu déplacé capital bi yóbbu ko Dakar. wax nu ni ñu ko gën déplacé woo Ernest Rom milité woon na pour ba boobu dem moo taxoon ñu bare. maanaam xaw ka mere ci noonu Saint-Louis perte maanaam rôle capital am ah te rôle boobu sax voilà daf ko perte nag ba pare commencé connaître benn déclin di wàcc di gën perte am di gën perte ba à la veille de l'indépendance comme ko xamee ñu yóbbu bi ko defee nag Saint-Louis maanaam mujj nekk benn ville vraiment bu mel na sax bu nelaw ah ville fantôme yii yëpp ay maison de la ah, ba jàpp fii nga xamee ni fi lu ndawoon jëndee tikki yi pour dem ci biir dex gi parce que à l'époque amul woon tëli dex rek la nit doon waaw yi dem voilà ay ay bateau yu mel na bu El Mogdad mhm. yu mel na Kër Muur mhm. yu mel na yooyu yëpp c'est des yi nga xam ñoo fi nekkoon di transporter nit ak marchandise yi ah, maintenant lu si kii mooy bateau bu El Mogdad El Mogdad bii mooy bateau bu fi jëkkoon nekk temps yu yàgg ya mhm. dans les années 1950 par exemple boobu xam nga taxu ko sax lool mooy bateau bu fi jëkkoon doon dugg ci biir nga ni mu ñëwaatoo fii pour euh, développer le tourisme la tourisme fluvial lu ñuy wax croisière croisière mooy ñu ko jël ñi pendant une semaine remonter le fleuve c'est les anciens escales escales yu fi amoon yu yàgg yi jaar ci ay parc de Djoudj parc des oiseaux ak yooyu mais comme ni nga ko gisee rek dafay toog pendant presque lu toll na ci cinq à six mois ñu réparer waat kat defaraat ko pour maintenant si octobre bi mu reprendre encore ba mois de juin. kon fi moom mi ngi dox daal. waaw mi ngi dox mi ngi dox actuellement si réparation la jógee vers la fin du mois d' octobre waaw dana commencé. remonté wat ah? amoon na importance loolu parce que comme ni ma la ko waxee rek ay villages yu mel na Kër Mour yu mel na Dagana yu mel na salde yu mel na Podor ah, tout cela dafa daawoon dem ba àgg foofu. parce que bu àggee ba Podor nag maintenant fleuve bi dafa xaw kawe moom la wax le haut Sénégal. Hmm. foofu yeneen moo du bët mooy jëlaat relais pour mën dem ci biir hmm. mais fii ba Podor mën nañu wax ni. waaw c'est navigable. waaw euh, bii nu jëm waaw nu euh, fii ñoo ngi ci toujours ci loolu ñoo ngi maintenant vers la grande mosquée. mooy maanaam jàkka ju. la grande mosquée de Saint-Louis. Mm-hmm. jàkka ju gënoon rëy ci ndar. ci époque boobu année 1825 ak yu mel noonu. xam nga place bi mi ngi tuddee woon place Saint-Germain. Mm-hmm. de Saint-Germain léegi nu jël place boobu mosquée tabax fi mosquée. wax nañu sax lu bari ni El Hadj Oumar Tall mu fi jaaree di waxtaan ak nit ñi moo fi joxee direction penku mm-hmm. am na sax ñu ni fu mu tegoon maanaam bantam ba ah, fala ndox mi génnee mooy teen bi mu tracé maintenant ni voilà fi daal bu ñu fi jàkkaarloo mooy penku bi moo fi joxe maintenant nag comme ni nga xamee mm-hmm. comme ni nga xamee mm-hmm. alors euh, am na ci ay daan si ay cloche gis ci ay ay ay montre yuy wanee ni yuy wanee ni vraiment à l'époque aussi français yi bëgguñu woon trop Euh, l'appel du muezzin maanaam nu nu nu. waaw nuy nodd ak yu mel noonu. waaw mënoon na leen gêner ak yëpp ñoom yu bari amoon na ci. waaye tere terewul ni euh, gars yi rek. ah ay cloche bi ci jumaa ji. waaw waaw cloche bi waaw ma exactement donc yooyu nga gis noonu. yooyu yëpp nga gis noonu ay ay mbir yi nga xamee ni ay vestige ñu leen di wooyee tey maanaam duñu bokk ci histoire mosquée bi même su fekkee sax duñ ko doon interdire ak yooyu tey bokk na ci histoire bi nga xamee ni donc mënuñ ko bàyyi ci place am pour voilà ni vraiment histoire moom ay traces yu leer la yi nga xam ne nit mën na ci teg bëtam man ci mën ci wax. waaw groupe bi nu jàkkaarloo hmm. Raza. moom euh, ban at la lañ ko fi indi. groupe yi euh, année yu ñuy wax mille huit cent quatre vingt mille huit cent quatre vingt et mu deux ko indi parce que lu ñu war rappeler mooy premier groupe bi waroon ñëw wul ndax boo demee ba booru Mauritanie fu ñuy wax Arguin ban boobu dafa nekkoon benn ban bi nga xamee ni la plupart des bateaux foofu la ñu doon alors moo tax deuxième groupe bi deux bateaux ko indi. bu ñu ñëwee ba agsi fii nag am na ay soldats yu fi nekkoon ak ingénieur bu ñuy wax Peysono ñoom ñoo ko rassemblé rassemblé piston yi poulie yi marmite bi ni nga gis nii ak fi nga xamee ni fa lu daawoon dugal la houille plus tard le charbon pour produire vapeur ci marmite bi par tuyauterie yi mu communiquer avec boîte à chaîne bi gis nga comme chaîne vélo gis nga aussi à l'époque pièces ñu daan utiliser comme ay vis ñu leen di wax ay rivets moom nga gis nii moom ngay gis si pont donc mooy référence yi nga xamee ni aussi képp kuy gëstu si histoire française di gëstu si histoire ndar da nga koy ak ci histoire presque presque lu mat a entretenir lu mat a sauver la sax d'ailleurs parce que il faut nu boole ko ci parcours de découverte bu ñuy def ci ndar pour mën wane vraiment son passé donc surtout commercial ak gru bi donc bokk na ci ñuy mandargaal vraiment passé boobu. pointe nord le bout de l'île vraiment moo nekk nële comme ni nga ko rek mooy Lodo fii fi la Lodo di jeexee fii Lodo di jeexee nag moom la ñuy wax place de euh, maanaam Liège ville boobu nekk Belgique aussi ak Saint-Louis comme ni mu la ko waxee rek a chaque fois bu ay bu ñu évaluer xool ni am na yu bëri yu ñu niroo dañuy jéem sauvegarder yooyu ku nekk maintenant intervenir ci par la coopération pour jéem loolu taxawal loolu daal. mais place Faidherbe bi nag bëggoon naa nga dikkal ma moom kañ lañ ko fa def. xam nga place Faidherbe place bu yàgg yàgg yàgg la laata sax français di ñëw am na ñu doon tuddee place de la savane waxoon nañu ni braque du Waalo yëpp bu ñu jeexalee ba def seen ay récolte ak yooyu dañuy jël ay gaal ñëw ci place boobu tuddee ko sax place du coton di fa def ay feet di fa def lu nekk-nekk. ba français yi waaw Waalo moom foofu voilà Waalo ko moom si suuf Waalo la bokk. ba Euh, tuddee ko place de la savane xam nga mais français yi anglais yi duñ leen bett jël île bi en 1693 ñoom itam tuddee ko savana ba tey rek benn la savana la gars yi anglais di wax savane savane ci français léegi buñ fa jogee place bi nekk place bu mag bi nga xam ni fa la maanaam presque euh, rafetaayu ndar yëpp di génn ak tàkkusaan bi ñu koy wax tàkkusaanu ndar xam nga boo liiree ay romans yu mel na ay kërim Ousmane soose da nga mën naan la place centre d'élégance et bon goût que moom la presse bi di jël chaque fois di wax. Mhm. bu ñu waxee nu centre de gaz et ko tuddee baya baya mu ngi tuddee bayaal ba bayaal ba mooy wax place bu gën a mag ci place yi. xam nga su jógee léegi ni ñu dañuy jógee noor ñu jógee sud ñu jógee est ñu jógee ouest di fa dajaloo. ñu fa dajaloo nag ku nekk foo jógee maanaam ku nekk di wane li nga xamee ni mooy sa vraiment ak sa aada sa cosaan ak sa rafetaay xam nga nu koy tuddee nag moo taxoon place boobu am na sax ci maanaam. diggi avant indépendance yi ay kiosque à musique yu fa nekkoon yi nga xam ne yenn saa boo ba fa rombee sax nga gis ay gars yi def ay pas de danse dem ak dellu si wanee ni place bi vraiment place de euh, d'échange la moo tax lu mel noonu day inspiré ay artistes ay écrivains ay ñun nekk ku nekk am loo ci bind ku nekk am loo ci tracé maanaam wane ko loolu moo waral mu nekk place bu siiw place culturelle bu ñu koy wax si Ndar rek ñaari symbole fi nekk mooy pont bi ak place boobu ñooy place yu gën siiw ci place. ci ci affaire yi lépp moom. waaw xam nga Faidherbe ba aussi dafa nekkoon ki nga xamee ni maanaam euh, dafa bëggoon ndar bëggoon na ko bëgg bi nga xamee ni moom moo commencé même xam nga avec moom ci la colonisation départ parce que mën nañu wax sax ni avant moom colonisation amul woon parce que lu amoon mooy occupation. occupation maanaam mooy da ngay jël suufu jaamur mais chaque mois dafa mel ni kuy loué chaque année da ngay fay. impôt fay impôt. impôts yi mënoon na nekk ay drap mënoon na nekk ay eau de vie mënoon na nekk xam nga temps yooyu moo doon loolu yooyu la gars daan ay fer ay cheval comme fas yi exactement léegi nag après moom bu mu ñëwee dafa commencé nii moom véritablement dafa bëgg gis benn ville bi nga xamee ni duñ koy construire mu nekk lu homogène tubaab lu ñuy homogène mooy yëpp niroo n'est-ce pas yi yaatu nespa nekk ay rue yu yaatu yu nu mën def yu mel noonu mu commencé nag ci place Faidherbe bi yaatal ko foofu nag ci la ay caserne nekkoon ay place d'armes nga xam ni chaque matin day génn passer en revue ses troupes dellu si waat ah def troupes en alerte contre les voisins rasiers comme ni mu ko waxee woon mais aussi contre les voisins en Europe mais qui sont des concurrents aussi parce que xam n'oublions pas que ay anglais yeeg espagnol yeeg portugais yëpp ak hollandais yeeg yëpp hmm. ñu doon ñoom ñëpp doon jëm hmm. convoité hmm. vraiment ay richesses nekkoon fii donc moom bu mu ñëwee dafa jëm saxal maanaam défendre l'île contre ñooñu mais également préserver l'île ci loolu nag la commencé après attaquer maintenant créer ay école commencé di indi ay fils de chef yeeg yooyu di leen ci palais bi di defar foofu alors di di defar petit à petit mën nañu wax ni bu mu fi jógee en 1865 déjà mën nañu wax ni le Sénégal déjà moo xam sax Saint-Louis mais le Sénégal de nekkoon na benn nation parce que tous les petits états ethniques comme ni nga ko gisee ay Kayor ay Bawol ay Casamance ay Waalo tout ça yëpp presque ñëwoon nañu nekk benn par benn ba ñëw nekk maanaam ci unité bu ñuy wax le Sénégal. ba nekk xam nga Faidherbe bëgg na lool ndar. waaw mais nag ci taarix ci ci dëgg yàlla def na nag yu xam ne. yu xaw ñaaw la ci biir réew mi. Hmm. yoo xam ne histoire génne na ko aussi. waaw xam nga colonisation colonisation nag. waaw colonisation moo tëddee noonu. Hmm. xam nga xam nga defin ñaaw sax mu ëpp. bu hmm. rafet bi exactement. xam nga nit ñi du ñu gis lu dul li nga xam ne moom la ñu tabax nii mu rafet mu def yu mel noonu mais toroxal doomu aadama waaw waaw waaw ko tabaxalee ko waaw waaw waaw amatul xam nga amatul njariñ moo tax léegi ñu bare sax pendant très longtemps loolu moo doon problématique wu patrimoine yi est ce que war nañ ko sauver wala war nañ ko sauver ñeneen wax ne bâtiment yi c'est des bâtiments tabax ko fii rey nu noot nu xam nga weddi suñu ay culture pendant très longtemps colonisation mosul reconnaître que ni am nañu culture xam nga xeex nañu yooyu yëpp ñeneen ñi non non non mais def nañu yooyu yëpp mais malgré tout yooyu yëpp nu xeex terewul am na fi ñi nga xamee ni aussi ci à leur côté xeex nañu wanee ni vraiment nit ku ñuul am na valeur am na histoire xam nga ñoom Senghor sax nekkoon nu fi ay négritude avant ñoom am na sax ñeneen waa ñoom Aimé ñoom Damas tout ça bind nu fi ay négritude ñoom Camara Laye l'enfant noir noo ci mujj wax si ay ay serpent yeeg yooyu tout ça ak ak ak valeur yu africain amoon yëpp gars yi mujj nañu aussi bind wanee ni affaire bi lii la lii la lii la lii la mais comme li ñu tabax yëpp suñu biir dëkk la ko yi def malgré collision nunu malgré weddi nunu malgré def nunu lu ñaaw lu ñaaw lu ñaaw lu yëpp mais tey si tey mënuñu lu dul alors defaraat suñu ville voilà patrimoine qui nous rappelle notre, qui nous rappelle notre passé mmh. notre passé commun mmh. ah donc qui dit que tout temps boo ñëwee ndar mmh. daa xam ni loo bëggoon weddi doo ko weddi waaye boo ko effacé yëpp mën nañu wax ne léegi gars yi dañu ko doon wax nii rek mais mosul am loolu yooyu bokk na ci li nga xamee ni war na mën tax nu préserver patrimoine beneen bu war tax nu préserver patrimoine mooy tey si tey aussi il faut que nit ñi jeunes yuy ñëw di màgg il faut ñu am ay emploi ville bu mel na Ndar soo ko defaree ba mu nekk ville bu jekk tourisme dañ fi développé école tourisme dañ fi man nekk booy daan leen si mën formé daan fi mën defar yi nga xamee ni mooy ay emploi des jeunes même sur le bâtiment construire bâtiment ak yëpp ay métier la yi nga xam ne dañ ko war jàngale nit ñi mën xam parce que tey population boo ko soxlee si biir jeunes yi ñu si bëri moo waral yëpp nga gis di daw dugg ci bëtu yi dem fu nekk nangam ak nangam nag ñàkk métier la mm-hmm. parce que da naan su ma demee ma jaay sama doole dina am dara mm-hmm. mais jaay doole kese kenn mënu si dëkk il faut maintenant léegi voilà waaw moo gën il faut léegi nuy former ni ñi ci seen métier yi ñu xam ko bu baax su métier su mokkee rek am nga lépp parce que soo ko liggéeyee mu rafet daa ci am sa xaalis daa man toog daa ko mën trouver sa dëkk ñoo ngi ci bopp ndaru Lodo mooy fii nga xamee ni fii la dex gi comme ni nga ko gisee def deux bras maanaam lii mooy petit bras du fleuve lee tam di grand bras bi dex gi nii lay ñëwee gis nga il bi nekk en face moom la ñuy wax bopp coor bopp coor histoire bu yàgg la parce que waaw moom moom cimetière la woon ah. cimetière maanaam île bi bu ñu ko defaree fii amul woon fu ñu fi mën suulee néew duñ daawoon jël ay bateau de traversée ba àgg fee di fa fa suul léegi nag c'est habité par exemple fii garab yee tax doo mën a gis dëkk bi waaw waaye au moins ay cent habitants wala cent cinquante ñu fa di dundee pêche ak agriculture boo xoolee itamit garab yee presque moom nañu wax nii mooy frontière bu gën jógee Mauritanie waaw boo nekkee Saint-Louis rek à trois kilomètres mën nañu wax ni yaa ngi waa jógee na trop jógee na waa jógee na lool fii mooy garab yee moo tax nga gis nii bu ay problème pêche xam nga au niveau de la mer pour xam frontière day xaw donc moo tax nga xam problème pêche nekk li nga xam ne dafa xaw difficile fii waaw dañ kenn du xam frontière fu mu waree beneen bi mooy fii mooy début de lu ñuy wax tuddee langue de barbarie maanaam suuf fii dafa mel na maanaam lamine moo tax tubaab bi tuddee ko langue maintenant ñu fi daa woon ñëw maintenant comme ni nga waxee woon sànq mooy berbère yeeg ñooñu doon tuddee ko woon langue de berbérie moom mooy goxu mbaaj ah mooy sanc ba après waaw non lii gox mbaaj la gox mbaaj gox mbaaj moo nekk fii fii gaal yi ne waaw fii nekk gox la parce que gox aussi euh, ay pêcheur bare na fi hmm. même su fekkee sax bare na ay commerçant ay va entre Mauritanie ak fii mais bare na également ay pêcheurs yu fi dëkk soo demee continuer aussi Santhiaba c'est la même chose ñëpp ñu ngi ci booru tefes gi nga dem aussi Gendar c'est la même chose après nga continuer ba Hydrobase foofu mooy zone touristique beeg fa avion yi euh, nga dem encore plus loin fa la parc bi nekk foofu la jeexalee parc boobu nag maanaam euh, monaatu géej yi ak euh, yenn ci picc yuy migré di fa ñëw yooyu lu ñu bëgg a sauver def ko parc foofu. mel ne sunu maam Ahmed Gora maam ci Jacques Diouf ak ñoom Xayaar Guèye ki ñooñu moo jëkk fi jàkka minbar bii ngeen di dégg moo fi jëkk tabax tabax ko def fa ay kër pour ndoxu ndéem bu ñëw amoo foo dal nga dal fa dem nañu ba nga xam ne sax am na ñoo xam ne fa lañ dëkk abadan te jul condition bi daal mooy dëkkal ku xeex daal génn dëkkal def lu neex loolu mu am yeneen kër yoo xam ni ñooy euh, amee ci produit yi ci am ñooy dundal yeneen kër ni mimbal bi def ko moom donc sëtam yaa ngi fi at mu nekk mu def jàngu Pentecôte fii ñëpp ñëw teer famille bi yëpp macha allah ñi ne Ëmma Ndiaye Mabey sur le plan religieux ñu xam nañ ko fi di ma waajuru Ëmma Ndiaye Mabey ak euh, xam nañ ci aussi ku ñuy wax euh, euh, Maajoor Gumba Sila bu mag bi Ndiaye Ahmed Ndiaye aan ñoo fi newoon ci jumaay sëñ Moussa Diop sëñ Moxsin Diop ñooñu ñëpp ay kilifa diine lañ ci ak ku mel naka daam alaaji daam Seck nga xam ni zawiye bi alaaji Malick nekk moo ko mayoon alaaji Malick ba ñu nekk sëñ Mbox Mbox daat euh, bu max daat aussi mu ngi fi mu noon interprète ci tribunal di waajur ci Serigne mbay Sy Mansour bi nga xam ni mooy xalif général actuel moom itam fa la ci cosaanam foofu mooy cosaanam am na ci ku ñaa ama jo ama ama amat kan kura nga xam ni moo jur ñoom màkki kan kura ak buya kan ñoom itam ñi ak amat Fall Malick xam ni moo jur ñoom Cheikh Fall bu Air Afrique seen waajur ji ak amit Sow Fall écrivain ñoom ñëpp ci lañu bokk ak góor gi euh, mën naa jox góor gi Samba Diallo bi nga xam ne moom sax presque fee la féete gànnaar ba caatam ba mu ngaa seeg général Diaga Dieng ba mu nekk ci Nouakchott di chef d'état-major gendarmerie Khalilou Sall moom it mu ngi fi Khalilou Ka fii la bokk muy maam ci Seydou Gueye bi nga xam ne mooy secretaire général du gouvernement moom itam famille am ngi fii ñoom Kader Ka ak ñeen nekk Dakar ñoom Oumar Sow ñoo ñëpp ci ay sët yi ñëw kër Madieye Sall boo fa demee eh, ñu nga fa Madieye Sall ñoom Khalilou Sall ñoom ñëpp bi newoon directeur semaine de fer ak ñoom Daba Sall ecole Madieye ñëpp xam nañ ko ca Dakar ñoom it fii lañ ñu mag ñu baax ñi ak kër eh, waa borom këram di Moussa seen maa euh, waajuram mooy kër Maawa Seen ci buntu Gendar fii ñëpp xam nañ ko kooku ci nit ñu baax ñi Alaaji Maxtaar Njaay Ngaari moom it ku nekkoon fii la nga xam ni moo yar pratiquement almaami Mataw Fall moom it ku ñu ràññee la ci mag ñu jëkk ji euh, day euh, ki ju papa yi Ndey Sow Abdourahman Penda Abdourahman Penda moom itam ci nit ñu baax ñii la bokkoon fii sëtëm yaa ngi fi maanaam daal ndar daal ñii la demee ba nga xam ni ak Bakar na kenn mënu wax ndar te waxoo ci Bakar kër Bakar yi naan boroom angali fii lañ nekk waa Lamine Gueye fa cosaanoo général Soumaré ba nga xam ne moo nekkoon maali ak Boubacar euh, Birame Gueye Mame Moussé nga xam ne cooy màggu ndari ñoo fa defa ak Bassirou géey ñoo ñëpp catholique yi waxtu kër Médor a ngi fi Mariane kër Daves a ngi fi ñoo ñëpp ci kii militaire ndar ci dañ nekkoon ñoom it mën nañ leen tudd ci wax bi parce que ndar dëkku métissé la boo waxee waxu jullit yi mën nga wax waxu catholique demoon nañu ba jaxaso bu ma waxee daañu wax it kër euh, kër chimère kër chimère it demoon ba nekk ndar ba Ablaye Diop chimère doom ji moom it mu ji nekk meeru ndar ñoom it ju mag ñooñu lañ nekkoon ji Jim Njaay waxi noppi ñoo ñëpp ci ndar ci lañu bokkoon maanaam daal ndar xam naa li ma ci mën a fàttaliku daal loolu lu ma ci mën xam sëñ Muxsin sëñ Muusa Diop ñoo ñëpp ci magu ndar yi la ñu bokkoon kañ Maxtaar Ba Alaaji Maxtaar Ba aussi ñoom it ci magu ndar yu baaxoon ba ci Ablaye Ba bi nga xam ne nekkoon na imaamu sundoone bu ndaw bi ñoom ñëpp mu nga fa léegi guy seddale gis ngeen que dem nañ fa kii garab gi guy seddale la garab gi la boo xam ne nag ku mosaan dugg néegu góor fa nga daan dem wër que def ci sa la nga bindi sa tur wala nga jël sa xoto lu mel naa daaj pour fàttali ko naa def dafa nekkoon nag en dehors de la ville ay kilomètres la woon dañ daan dox lu sore dem moo tax Abdou juuf ñun bi ñu tuddee association bi Abdou Diouf recevoir ñu 90 dafa ni ah ça me rappelle ma jeunesse maanaam mu ngi koy fàttali ndawam wane na ni moom it ba mu nekkee julli daal dem na fa su génn néeg góor garab gi nag à un demoon na ba daanu mais ñun ci at weer wi ñu génn mois de mais fexe nañu ba replanté waat baat bi Mansour fay maire Ndar jàppale ñu ci bu baax ak waa Owoy Foro commandant bi nekk fay Manga jàppale ñu baax moom ñoo ko waroon inauguré sax ba place bi sax dañ ko nar tuddee place guy séddale délibération maire yi rek la ñoo nekk incha pour pour dire que plaque baag yëpp nga fa garab gi gis ngeen ko commencé na meññ nii la daal maanaam daal dara ngoog ndar nag histoire la bu bare boo xam ni kenn mënu ko jeexal danga laal tuuti rek li ci des nga bàyyi. waaw mbokk yi gis ngeen nag euh, seen émission démb ci ndar xam naa dinañ ci dellu si ndax ndar moom histoire am mënta yem ci benn émission muy euh, dëkk boobu nga xam ni suñu histoire ak colon yi defe naa ni feeñ na bu baax a baax ci émission bi ak ci image yi ngeen gis eh, muy dëkk boo xam ne nag wax dëgg yàlla li nga xamante ni rek seetlu nañ ko fa moo di eh, kër yu bari ñu nga yàqu te loolu nag état bi war na cee jóg parce que kër yooyu dafa am ak suñu histoire eh, jàngat bu rëy rëy waruñu leen bàyyi ñuy daanu xam naa mairie ba wala état bi dinañ ci jóg jéem a defar kër yooyu ci club xam sa bopp nag ñu ciy gërëm bu baax a baax suñu grand Duma Sëy ndax bi ñuy dem. moonu boole ak i xaritam ak mbokkam ndax moom xam ngeen ni ndar la dëkk waalo la dëkk aussi ñu koy gërëm bu baax di gërëm aussi euh, suñu jigéen madame Sidibé directrice bu fondation Sonatel ci jàppale bi ci ndimbal gi ñu ngi koy ñaan rek wax dëgg yàlla mu euh, mu mu xam ni daal na nu bu baax a baax a baax ndimbal yi nga xam ni mi ngi koy def ci ñun di ko def ci émission démb pour euh, histoire Sénégal ak culture Sénégal gën di feeñ ñu gën a xam suñu bopp ñoo ngi ko ci gërëm bu baax te di leen ci ñaanal et di ñaanal aussi suñu xarit euh, Cheikh Ba dëkk Pekes ak soxnaam euh, maam ay Fall nga xam ni moom ndar la dëkk et di ñaan aussi Mbida Fall mi nga xamante ni moo nekkoon député te génn àdduna di magam yal na ko yàlla xareel àjjana